toog ci bakkan kese seen cee dee mu génn ma ci lu ba jaar say bagaas toog dafa daw ma maay sëy ba sëy bu dara new kon nag yow muñal li ma lay sant mooy nga muñ sëy nag neexul boo duggee ci kër am ñu bëgg am ñu bañ loolu ba àddina ba àddina yàlla sax ñu ñu bëgg ñu bañ kon nag mën a koo bañ sa àndal ko muñal mu di la muñal la ngeen àndoon nag di ko bëgg ca ba muy doon continuer boo leen ko continuer kenn du leen dig man li may digal sama bopp rek laa li digal na nekk sa sëriñ bi tax daf jikko du tuuti bul xeelu bul ciibalu waaye nag mën nañu ci bëri tamit dañoo gaaw a léegi nag sànni kàddu nag ñu koy jëndee. yàlla xam na ne xam na boppam léegi nag loolu moo tax ñu la jàppal waaye. waaye nag ci dëkk léeg-léeg nga war a waaw léeg-léeg moom nga may xorom dafa laa ko ci sëñ bi sëñ bi kii da ko wax sëñ Cheikh Ndiaye yéen dafay ñëw siyaare ne la ku góor ki mel léegi mere ba pare jawe ji gerte ngeen mu toog yow ñu ñëw siyaare ne dem jawe ji mu neexal neexal jawe ji bañ léegi leen ñu daal ñu ko def ñu toog dañ jawe